waaw asalaamaaleykum man El Keita maa ngi nuyu mbokk auditeurs yëpp auditrices yëpp yi nekk yi déglu Rewmi FM ak Rewmi TV di ko seetaan macha allah à travers euh, partout dans le monde kontaan naa ci ñëpp. d'accord ñoo la gën a kontaan alors El Hadj tey boo naroon présenté wu euh, au Sénégalais suñu téléspectateurs yi ak wala suñu internautes yi euh, kan mooy El Hadj Keita. ah El Keita je un jeune bu yàgg bëgg musique dugg ci musique euh, yàgg na loolu yàggul euh, bëgg ko nag mu nekk amour ci man mhm. ah, ma juddu fekk suma papa di way mais c'était pas évident que pa sa papa way rek nga mën a way mhm. euh, mais dafa doon nelaw ci man daal bés ñëw concours amoon fii dakaar ñu ko doon defee yënguleen waa Mali jóge foofu ñëw fii di ko defee yëmbale ñu doon def casting bu tuddoon Kassanga ah, yàlla def nag ma dem participer ma bokk ci ñi ñu war a yóbbu Mali loolu daal moo ma gën a dugal ci musique ba ma demee Mali nag ah, mu représenté Sénégal yàlla defal ma fa ndam nag depuis lors ba ma ñëwee ci laa taxawal sama groupe nag xam ni war naa mën a way rek ma def ko alors lan moo la poussé euh, à de la musique wala da nga amoon benn référence kenn ku la influencé et après euh, tu t'es dit normalement war nga mën a def musique. non dama juddu ci famille boo xam ne ñëppay way waaw ah, suma papa day way ki ñu ma tuddee moo doon xoraawal Senghor muy Soriba Kouyaté. Mhm. Ah, ma koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana muy sama turandoo yàlla def nag loolu kese na parce que am na loo xam ne moom boo ko bëggee rek da nga ciy foncé. noonu demee man ma bëgg musique nag yàgg ko bëgg yàgg déglu musique yëpp ah, ba mu demee nag ba ci biir affaire bi daf maa sonaloon trop. Mm-hmm. fale ma def musique moo tax le destin mu ñëw nii naturellement ma way rek affaire bi jàll waaw ah, ñu ma ci poussé ma ma gëm ko nag premier fois nag bi may njëkk wootee maa ngi koy fàttaliku BCEAO la woon mm-hmm. ah, muy Yoff ma def entrée 1000 francs doon tester sama bopp la musique n'était pas bon sax. Mhm. parce que dañ doon takkale rek mooy woo samay xarit ñoom Alaaji Fay ne leen nañu taxawal group nañu joué. Mhm. parce que boobu bëgg naa ko. ma ma wootee foofu fees dell mu neex ma ne non mais attends pourquoi pas ma ma sóobu ci bi ma génnee sama benn grand moom laa gis mu woo ma ne ma booykaay ne ma bul ñu fontoo. li ngay joué ni neexul. Mm-hmm. ma ne ko ah ma li ngeen di joué neexul yow da nga yaru dëkk ci koñ bi moo tax ñu ñëw jàppale si la bàyyi suñu nelaw ñëw. Mm-hmm. mais sinon seen musique bi kii aw na la kii aw na la te dëgg la woo fond maanaam boo demee ba ci biir après boo ñëwaatee toog boo defee replay cassette bi boo defaatee boo toogee di nga xam ni liggéeyu woon liggéeyu ma woon waaw juste par amour plaisir boo xam ne bu nekkoon ci man la ma buggoon ko génnee. noonu la demee ñuy dem de fur et à mesure ñuy dem di liggéey di liggéey ba ci yàlla yàlla boole ma Mbacke Dioum. Mbacke mhm. Dioum mu koy nuyu de passage muy sama papa sama lépp ma moom doonatul producteur ak artiste am papa ak doom la. ndax barki démb ba ba sama papa génne àdduna yal na ko yàlla xaare àjjana moo taxaw taxawaayu baay. Mhm. démb tamit ba may yeew soxna ba may takk soxna. Mhm. moo taxaw taxawaayu baay kon. moom man ak moom nekkatul musique papa ak doom la mu jàppale ma ci sama carrière boole ma ak ay ndaanaan yu mag ba yàlla def nag affaire yi commencé ibbeeku hmm? may gis ni maanaam musique bi ma doon joué démb ak bi may joué tey c'est pas la même damaa gën a yokk sama xam-xam. Euh, sànq yaa ngi ne comme quoi euh, seen famille ñëpp a doon woy léegi sa papa. Euh, nan la réagiré ak nan la ko jëlee bi nga ko waxee ni que da ngaa bëgg def musique. non moom moom musul bañ musul bañ musul bañ macha allah man moo amoo problème boobu musuma problème boobu musul bañ sama yaay tamit musul bañ. sama famille musuñu bañ parce que xamoon nañ ne amoon na amoon noo kenn ci famille bi koo xam ne war na mën a way quoi. d'accord noonu la demee moo tax ba ma waaye ñoom ñëpp dañ ci d'accord. donc euh, ñoom ñëpp dañ la soutenir. dañ ma soutenir di ma jàppale. d'accord sama premier guitare sama papa ko jox. ok premier guitare bi sama papa ko jox. deuxième guitare bi sama benn ndijaay muy Lassana moo dem Paris ñëwaat indil ma guitare. ba pare dugal ma Douta Seck ñoom tonton Vieux ak Adolphe Coly. Mhm. jox ay cours de loolu nag moom dama ci sant yàlla. waaw ah, parce que c'était pas évident sa doom ne day way rek nga jàppale ko ci parce que tout début difficile début yu bari nit yu bari bu ñuy way seen parent yi duñ d'accord mhm. man moom sama parents yi d'accord nañ macha allah. d'accord sànq yaa ngi ne comme quoi tout début tout début est difficile. difficile ouais. d'accord yow est-ce que mën nga revenir tuuti ci ses débuts parce que gis nañ ne en temps normal. woykat buy door a door début bi c'est day compliqué soit euh, dañ ko def confiance wala dañ koy xeeb de ton côté comment ça s'est passé. si si si si noonu la début bi metti na trop parce que ay concert day am day ko am ci bi da ngay bëgg a yéeg mais doo mën a yéeg. waaw mm-hmm. ah, ñu bari doo mën a yéeg da nga ñëw taxaw si ginnaaw laajte ndax mën nga yéeg. Euh, lu waral loolu ah lu waral loolu loolu parce que boobu liggéeyagoo loo lu war lu war a loolu kese la ah liggéeyagoo loo war a mën a prouver nit yi c'était juste ça man blâmé wu ma ñuy doon bañ ma yëg parce que bëgguñu woon tamit ma yàq sama sama sama carrière noonu la demee c'était juste ça dañ la doon xamal ni àdduna balaa moo neex fa mu metti ay concert dafa daan am du ma mën a yéeg mais léegi concert bu am ci UCC maa ko organisé loolu sant yàlla <laughs> gis nañ ne génne nga benn woy bu tudd wuyuma mm. euh, et woy bi dafa cartonné et que mm. sur euh, YouTube am na des millions de vues mm-hmm. est-ce que yow euh, xalaatoon nga à ce que bi réussir noonu et que mu un tel succès bien sûr parce que booy liggéey lu qualité booy liggéey lu baax lu mu yàgg-yàgg rek xam ni dina dina dina atteindre million de vues loolu mm-hmm. kese la boo liggéeyee loo xam ni macha allah ñi ko liggéey ay professionnel lañ. Mhm. maa ngi koy nuyu tonton Ibou bu mhm. Prince Art moo mhm. liggéey morceau bi yëpp. waaw moo def morceau bi Mbacke Diouf moo ko woo mu defal mu morceau boobu muy wuyu ma macha allah ay baxaw bind si texte yi. baxaw ak Tidiane Kourouma jàppale ma ci texte yi xamoon naa ne morceau bi dina def dina def waaw dina def bruit quoi. noonu la dana parce que liggéey bu set rek euh, day day day day day day ñëpp a koy déglu parce que gars yi xam nañ melomaan yee ngi fi xam nañ musique bu neex ak bu neexul. d'accord léegi noo dundee euh, succès boobu. non succès moom ñun moom ay taalibe lañ ñun dunduñu loolu ñun moom ay taalibe lañ parce que suñu bët teguñu ko fii quoi ñu ngi xool leneen ñu ngi xool niveau international ah parce que ci musique yëpp la ñuy way. Mhm. yàlla def na loolu mu ne on fait de la musique daal variété la ñuy def maanaam. te ñu ngi gën a jàng ñu ngi gën a def ay recherche kon dara jommuñu ci musique de dañuy xaar yàlla mooy la ñuy xaar mu ñëw rek affaire yi doog yi waaw parce que fii moom liggéey rek la affaire bi amul secret. Euh, parlons de variété tey El Hadj Keita bu naroon euh, def comparaison entre musique bu njëkk. Hmm. ak musique bu léegi lan lay wax parce que gis nañ ne que artistes yi léegi dañoo révolutionner musique bi. Hmm. en fait ils font pas seulement du mbalax. Hmm. dañ ciy dolli leneen. yow lan moo ci sa appréciation. si si musique moo toll foofu musique moo toll foofu ouverture la ba pare musique amul frontière. Hmm. Euh, parce que booy dem de fur et à mesure ngay dem di nga am yeneen fans partout. Hmm. dans le monde moo tax doo yem kese ci mbalax da ngay ubbi sa musique pour ñi nga xam ni ñoo nekk au niveau international pour di la déglu di la découvrir parce que ñu bari dañ lay xam man ba ma demee l'Afrique en un talent ci la xamee ni musique ndekete du ay yii yëpp. que da gis. talent yoo xam ne doo sax comprendre dalay yeneen xeetu musique ndekete musique yëpp am na il suffit juste nga def ay recherche boo ko defee suñ borom dina ubbi sa xel ba nga mën a def toute sorte de musique d'accord euh, nee nga dem nga Afrique en incroyable talent mhm. léegi nga fa demee loo fa jëlee waa demi-finale dem naa ba yegg demi-finale ah jëlee naa fa expérience ubbi na sama xel mhm. wan na ma ni musique daal euh, du ay fo de waaye mhm. foo ñu ko jàppee foo liggéey la liggéey la parce que boo xoolee suñu papa yi liñ fi liggéey ñoom ba léegi fayagul parce que dañ ko teg ci yoon buñ mhm. ko tegee ci yoon rek ñun tamit mën nañ am loolu parce que ñu ñooy génération demain xale mooy doon i mag te génération bi bëgg nañu kon nañu gën a defaraat suñu musique rek pour mu avancer c'est juste ça. Euh, lan moo waral aussi nga woy euh, Bine Fall histoire bi fan nga jógee. waaw Bine Fall c'est une tante à moi. Mm muy femme battante mhm. di yeew fajar di daan dooleem képp kuy femme battante rek di yeew fajar di teg sa table di jaay bin faal nga parce que léegi damaa dem ba léegi am na ñoo xam ne si koñ bi lañ dëkk ay mimi lañu tudd dañuy jaay pinton mais booy bu ñu ñëwee dañ leen naan bin faal jaay ma te duñu wax turam mimi loolu ça fait ça fait autre chose loolu da lay dimbali loolu sant dañ ci sant yàlla femme benn femme la boo xam ne ku ku gëm boppam koo xam ne dañ fa daan dem di lekk fiiri te duñ ko sax fay ah, yàlla def nag ñu delloo ko njukkal boobu ah, mm, suñu borom jaarale fa affaire bi def euh, def bruit ah, ñëpp di biin faal biin faal te au début c'était pas comme ça dañ jëloon vidéo rek ma toog nii di lekk ci moom donc biin faal est-ce que mën naa salaat salade biin faal mayonnaise bi mu ma jeg yi ma xëy suba tiktok bi ñëpp di ko tiktok ay tubaab naar ñëpp di ko tiktok ma ne ma woo Baxaw ne ko waaw mais Baxaw mu ne ma waa Bin Fall ma ne yaa mujj gi ku ma woo Bin Fall nga may woowee ma ne attends Baxaw ne ma nañ def morceau Bin Fall bi ma ne ko ayca ma dem këram ñu bind ko fat fat dem studio dugal ko affaire bi génn def buum Bin Fall sax moo njëkk a am un million de vues que. ah bon waaye bien sûr. d'accord yaa loolu sant yàlla la quoi. ok alors El Hadj Keita ñu gën la xamee euh, ci musique. léegi ñu bëggoon xam ndax euh, tu as fait des études ndax sori nga ci fan nga waa dem naa ba cinquième secondaire nag. d'accord dem naa ba cinquième secondaire mais xam nga loo bëgg bëgguñu woon jàng ñun xaw ma la tax bëgg mais bu démb doon tey moom damay jàng de. waaw bu démb doon tey damay jàng mais musique daal dafa dem dafa dem ba ëpp ñu doole yàq suñu étude bu ñu waree dem bu ñu waree dem école sax du ñu dem école dañuy. dañuy dem ay fosco ak lu la tugg ci ay concert ak daw jàng waaw tey nag ah, <laughs> doy na daal. d'accord. léegi boo amoon possibilité euh, yokkaat su niveau d'étude. bien sûr bien sûr loolu loolu loolu day ñëw parce que jàng du mokk te nit du mokkal lépp de man bu ma demee ba nekk ba nekkaat paas ak mën naa jàng de. mun naa am benn professeur sama xër mooy jàngal bien sûr pourquoi pas parce que nit ku nekk danga nga war a am xam-xam. Mhm. muy ci muy ci wàllu nasaraan muy ci wàllu waaw daara. waaw noonu la demee ñun ay taalibe lañ ndongo lañ waaw. d'accord <laughs> euh, El gis nañ ne que marié wu nga récemment. Mm. léegi mariage boobu noo ko dundee ak say fans aussi nan lañ ko dundee. Parce que gis nañ ne El Hadj euh, il a la cote auprès des filles. waaw si euh, nan la ñu réagir par rapport à la nouvelle. waaw waaw waaw waaw waaw. waaw sant rek parce que tamit euh, góor moom dina toll benn moment boo xam ne dangay kenn ko nga mhm. c'est juste ça parce que ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla am soxna. am mhm. ay njaboot bu barke. am ay doom ñu ñuy wax papa loolu xam dafa neex loolu dafa neex ku ne ñaan yàlla yàlla ku bëgg a soxna rek yàlla na nga ko am parce que dafa baax da lay dimbali day tax nga casé wu day tax nga concentré wu ci sa liggéey ah day tax doo foo dem rek di nga ne am na ko may xaar kër ga di nga teel a ñëw di nga di nga di nga casé wu daal da lay ranger. c'est juste ça moo tax ñu yeew soxna waaw loolu kese la. Euh, mais fans yi non fans yi. nuñ koy jëlee loolu fan si lu ma lu ma lu ma neex neex na leen. alors euh, wax El Hadj Keita on sait que El Hadj c'est un Médinois boo xam ne il est très engagé. Mm. léegi euh, lan mooy sa relation avec euh, waa Médina. waaw sama relation mooy mooy relation boo xam ni ah yi dañ ma def ni seen doom mère yi def ma ni seen doom ah maam ay frères ay sœurs yoo xam ni. yàlla def na euh, dañu dañu dañu dañu dañu crochet bu baax man ak ñoom man ak fans yi moom dañu dañu maanaam dañu attaché wu bu baax parce que yàlla def na ñun moom bu ñu xasee ba jouer ba ñëw mën nañ dem toogaat fu ñuy toog mën nañ àndalaat ñu ñuy àndal ah, parce que liggéey la rek ah. en dehors de la scène RH Keita nit la comme ñëpp damay génn ci nit yi damay génn ci mbedd mi toog ak samay xarit ah bu ñu soxlaa dara damay ñëw bu ñu soxlaa vidéo anniversaire dama leen koy defal bu ñu amee dëcc damay jaale ji bu amee ngénte bànneex ak naqar laa ànd ak laa ànd ak ñoom xam naa li ma leen jox loolu lañ ma delloo si juste ça doon taalibe parce que noonu la demee nit moom doo fàtte démb doo fàtte fii ñi la fal parce que Medina ñoo tax ñu njëkk ma xam sama base maa ngi ko defaree Medina kon awma lu sut Medina Medina rek laa am moo tax hmm, ma leen bëggeewaat di leen delloowaat njukkal ndax Medina mooy sama fief Medina laa am fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee xam naa dañoo xam ne seen doom laa rek moo tax ñu def ma niñ ma war a def. d'accord léegi toujours de la Médina en fait mënuñu wax Médina te tudduñu aussi 5-5. Hmm. lan mooy sa relation relation El Hadj Keita ak 5-5. waaw loolu relation bu yàgg la depuis xale. Hmm. depuis ba mu ba ñuy football. Euh, école de football Ibou Ba may jaale suñu coach Lamine bay di ko jaale waa këram yëpp mère Koura di jaale tonton Idi Gueye di ko jaale ñoom Njaga waa këram ñëpp parce que ñoom ñoo ñu jàngal football ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci suuf yal na yàlla xare àjjana ñoom ñoo ñu jàngal football Ibou Ba fa lañ nekkoon di jàng football yàlla def ñoom ñu dëddu àdduna hmm. moo tax euh, duñ leen fàtte ñooñ duñ leen fàtte ñooñ ñoo tax ñu xam Médina noonu la demee sama relation nag ak waa Seng Seng foofu la jóge man ak mhm. Alaaji Fay ñoo bokkoon école football boobu ñuy footballandoo macha allah yàlla def buñ daan bu ma daan romb sax alaaj Fay ne ma est-ce nii xamoon da nga war a way man ne ko su may way yaa may tëggal yàlla def loolu su may way mooy yaa may tëggal yàlla def loolu nag affaire yi commencé ubbeeku. Mhm. ba ma ñëwee taxawal groupe mooy bi ma lay wax seen set bi may joué boobu Alaaji Fay laa njëkk woon ne ko damay joué moom mu ñëw suñu pap Mbaye Fay bëgg ma lool ah sama premier son falaché ma sama xol dañ ko woo ne ko damay def son clip mu ne damay ñëw participer ci clip bi te boobu bokkul ci deful voix deful dara mu ne ma damay participer mu participer ci clip bi macha allah muy sama xol sama premier son bi ma génnee deuxième bi mu ne ma man ak yow ñoo koy def ci laa woyee waa Seng Seng mooy morceau bi may woy sëtam nday soxna ah, muy sama papa ah, bàyyi caani fay chéri Abou Gueye ah, chéri maam Ndiaye suma yaay boobu suma yaay jooju nga xam ne morceau boobu rek la bëgg muy flashe ma bu ma demee télé sax bu may bu may presté sax dafa ne morceau bi bu bëggul morceau bi day fay télé bi dee na noonu la demee ma koy nuyu de passage sama yaay boobu foofu la relation bi loolu la. yaa ngi wax sànq euh, comme quoi da nga doon def football lan moo tax àggaliwoo euh, ko e que tu as préféré la musique par rapport ak football. moom loolu noonu laa lay wax bàyyi nañ lépp ndax musique sama tànk yi xam nga ne mënatul dóor ba noonu la demee euh, musique daal daf ñu ëpp doolee comme ni la ko waxee sànq dafa dem ba jël suñu temps jël suñu lépp ah amatuñu temps dem football bu ñu amee temps football moom xam nga jot la. te amatuñu jot boobu jot bi mooy dem studio jouer ji mais doy na waar doy na waar musique daal mooy suñu vie fi mu ne nii te ñu ngi ñaan yàlla daal def ci ñu ci bëgg. parce que am na ñu bari ñu ñu ci yaakaar ñu nekk suñu ginnaaw yaakaar ñu ci te yàlla bu yaakaar tas waaw. d'accord. Euh, léegi bi nga dalee woy ba léegi ban euh, est-ce que mën nga raconter benn anecdote wala loo xam ne marqué na la depuis bi nga commencé sa carrière ba léegi wala benn scène boo xam ne doo ko mës a fàtte. bi ma scène bi moom moo nga xam ne moom duma ma ko mës a fàtte mooy le 24 décembre xam nga chaque 24 décembre dama doon def concert Médina. Mm-hmm. <coughs> pardon chaque 24 décembre dama doon def concert Médina mais bii moom. muy bu grand théâtre bi 24 décembre bi ma bu grand théâtre mhm. ñu ibbi salle bi salle bi fees dell ma gis sama yaay ah loolu duma ko mës a fàtte sama yaay toog reetaan ma ne man la boobu noonu damaa damaa mel ni ñu bari sax ñu naan ma El Hadj jël dara man ne leen jamais mu tax duma naan mais dañ ma daf maa daf maa boobu moom daf maa du ma ko mës a fàtte parce que sama yaay du génn sama yaay huit heures mu tëdd waaw noonu la demee moo tax loolu moom mu gën a marqué si sama histoire yëpp boobu duma ko mës a fàtte. d'accord. Hmm. alors euh, gis nañ ne instant bi dañoo toll ci benn période boo xam ne euh, dañoo nekk di dund euh, benn pandémie léegi pandémie bi lan la yàq ci sa carrière. déggoo li ma la wax déggoo da nga wax pandémie rek ma def nii. moo sonal ñëpp. corona laxal nañu. naa la jël nañu mais sant yàlla ah sant yàlla parce que natt bu ñu la ko tegee rek am na ñu ñu gën a mettali am na réew yu gën a mettali de mais ñun lii la ñu daj nañ sant rek nañ sant yàlla parce que boo xoolee ah yeneen réew yi li mu mu jël ci ñoom ay doomu aadama moo ëpp que li mu jël fii kon nañ sant yàlla di ñaan yàlla mu teggeel ñu ko parce que c'est lui le médecin le chef suprême le gardien de la fois yàlla rek mën moo mën lépp moom rek moo ko fi mën a jëlee te ñu ngi ñaan yàlla mu jëlee ko fi ndax yàq na suñu activité parce que boo toogee bientôt cinq mois wala six mois géo spectacle amul dara amul ah na métti na parce que ci ku ay njaboot ci ku koo xam ne dañ la yaakaar mu métti mhm. lool mais dañuy sant yàlla. ñaan mhm. yàlla xam naa ne fépp la méttee parce que fépp la méttee ñëpp la laal noonu la demee dañuy sant yàlla mu jëlee ko fi rek ñu delluwaat suñuy activité loolu rek lañ mën a wax mu mënuñu wax leneen wala sax bu fekkee commencé na yàgg sax ñu ibbil ñu ñu def soirée masque ak gel. ah bon bien ak gel. waykat bi kese moo dul takk masque bu téye micro bi di way mais orchestre beeg. public bi ñëpp takk masque grave mën nañoo gérer. d'accord euh, ce que El Hadj Keita il vit de sa musique. bien sûr. ah bon sant yàlla bu baax alhamdulilah bien sûr suñuy prestation dañuy fay. Mhm. bu ñuy joué ji dañuy fay. bu ñuy soirée macha allah day fees dell dañ ci ñu ci sant yàlla. bien sûr. liggéey boo gëm def ci fulla ndem konkorom. xonkoram wala gerte ngay jaay gëm ko mu jariñ la waxuma la ak musique waaw. waaw entre nous est-ce nga ñu wax euh, somme bi nga jot laal boo xam ne li bu moo ëpp. genre hmm. la plus grosse somme. <laughs> loolu loolu. loolu loolu laaj ko Mbacke Dioum loolu foo bi nga laaj ko Mbacke mooy encaisse affaire yi. ah bon du man de <laughs> Mbacke mooy encaisse jox ma. ma du man maay encaissé ménagère bi fi Mbacke Mbacke ak Biram ñooy encaissé. waaw mais mun nañ ne euh, que la musique change notre vie quand même. bien sûr bien sûr sant yàlla bu baax. waaw sa liggéey boo ci defee fulla ak fayda rek dalay jariñ dem ay dem jaay rek sant la. waaw sant yàlla matul sedde léegi euh, ban conseil ngay jox xale yoo xam ne euh, comme quoi dañoo bëgg dugg ci biir musique tey benn xale Médina bu ñëwoon approché la ne la El Hadj dama bëgg def musique euh, lan laa mun a def ban conseil nga xëy jox. dina la jox conseil ne la liggéeyal ba ci kanam parce que musique dafa metti dafa metti wala boo amee ku lay jàppale demam mais boo amagul ku lay jàppale liggéeyal parce que musique dafa metti ay moyens la laaj studio da ngay fay musicien bu dugg bu laalee benn bant sax nga ne te tëbbagul sax da koy fay boo déplacé musicien da nga koy fay répétition da koy fay salle bi da koy fay musique dafa metti trop dafa metti trop saa yoo joué da ngay fay say musicien say staff da nga di jox mm-hmm. ñëpp ngay fay musique dafa metti képp ku koy def rek balaa nga ci dugg na jàppale wala nga xooli leneen dafa yéeme de dafa metti de. d'accord yow bi nga doon commencé euh, kan moo la jàppale. nga waroon commencé sama bopp laa doon moom laa la doon wax ne la samay xarit laa jël Marcel Massour Alioune Thiam moo doon joué batterie ah moo nekkoon orchestre national Alioune Thiam Marcel moo doon joué clavier Massour moo doon joué basse solo ñëw joué guitare Brahms guitare ma commencé Alaaji Fay ñëw. <clears throat> boobu demeewul noonu c'était entre amis. benn groupe d'amis quoi entre amis waaw lu ñu am baax na lu ñu am séddoo waaw bu ñu amee dara bu ñu ma mayee takk ma génn ne gars tey lii laa am. gore loolu mooy musique gore gore wét gore wétalu ko gore musiciens yi ñoom ñooy tëgg bu ñu tëggul woon du neex lu ma am dama koy def nii takk ne gaay lii lañ am tey ñu séddoo ñun ñëpp. paren saa yi ñoom ñooy ñëw mu des 500 wala 1000 francs ñu ne la am artiste artiste am yóbbul comprendre nga ndeysaan ah, métti na trop métti na trop mais da ngay sant yàlla boo demee ba affaire yi ibbeeku da ngay sant yàlla parce que gënoon na méttee nii c'est waaw gënoon na méttee nii dañuy sant yàlla xam ni musique dimbali nañu tamit dimbali nañu noonu demee D'accord. Léegi dernière question, quels sont les projets de El Hadj? Les projets, comme je suis dans un label Afro Records Sénégal maa ngi ci Mbacke Dioum moom laay déglu instant yi nag projet bi ñu ngi waajal benn album boo xam ni macha allah buñ ko déggee dinañ xam ni El Hadj mi ngi liggéey. waaw mhm. et je la musique la bonne musique même. d'accord waaw noonu la demee. c'est bon à bon El Hadj ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, internautes yi ak euh, auditeurs yi. waaye kontaan naa ci auditeurs yi auditrices yi bëggee info euh, réew mi. TV ak réew mi FM macha allah Rewmi Quotidien muy tas bagaas yi <laughs> maa ngi bëggee ci ñoom ñëpp di bëggee euh, sama sama xarit Kapi macha allah le photographe macha allah lu mu fotowul baaxul di bëggee Anna la la Anna macha allah elle était trop sympa avec moi macha allah bëggee ñëpp di kontaan ci képp kuy bëggee RH Keita maa ngi lay jox loxo di la bëggee di la share jaajëf.